بسم الله بسم الله ان ولي الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يين ييغا خامني ني اند ييتا ييغا خامني دنج كاي ديف كيت واديلو كو ماغال كو يام حرام دي بيس ميغا خامني سيرن خادم رسول نيوون في توبا tey ñu nekk ci bis bu am solo bis bi nga xam si ne nii école yi nga xam ne ni moom la Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké taxawaloon di dajale ñi nga xam ñoo nekkoon ci école yi te ay certificat ñi am ay BFEM ci neexal waaye tey nag ñu dend ak ñaari élèves yu yoo xam ne yéen ci école boobu nga xam ne moom la Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké taxawaloon ki nekk suñu wetu ndajoor di Serigne Moustapha Lo moom nekk ci ñi nga xam ne bokk na nga xam si ni ci ñi njëkk génn ci école bi nga xam ne lii ñu def tey Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ne faatma si jëm boppam defaloon na ko moom si jëm boppam yëkkati na diplôme joxoon ko ko ñu ànd ak suñu wetu càmmooñ di Serigne Moustapha Dieng moom tam kenn koo xam si ne ci mag ñi nga xam si ñu njëkk a ci école bi ci la bokk nga xam ne fi mu association bi nga xam ne moo jiite parents des élèves yi wala ressortissants yi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite ginnaaw Serigne Moussa kon dañuy ànd ak Serigne Moustapha Lo rek laaj ko Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké lan moo tax mu jékki-jékki rek choisir xam-xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, xam naa laaj nga tey laaj boo xam ne laaj bi yaatu la ndax Serigne mi nga laaj ne lan moo tax mu jëg jëm ci xam-xam waaye Serigne Cheikh dafa jóg jëm ci dundal comme ni ko Serigne Moustapha Diop waxee léegi sunna yonent bi nga xam ne Serigne Touba comme ni mu ko waxee léegi nee na dafa fekkoon ñu mu mu mel ab sën ñu suul ci def ci ay dóom ak lépp Serigne Touba dee na ma raxas comme set ne sunna sànga ne ku bëgg jëfeel dafa mel sëñ sëñ Cheikh Mbacke bi mu ñëwee dafa ne dan Serigne Touba ci doxin woowu ndax wax nga xam-xam day base bi day depp day tàmbali bi mais sëñ Cheikh nit la koo xam ne léppi doomu aadama sëñ da ko yittewoo woon xam naa ci xam-xam la ñuy wax tey taxawaayam ci xam-xam waaye boo seetee ne ci wàllu économie ci wàllu même politique ci wàllu yëpp Serigne Cheikh da caa wane exemple boo xam ne yaakaar naa ca ba mu koy wane ñun Sénégalais yi xamuñu ko woon mais léegi xam nañ ko ndax bari na fi ay borom ay borom multimilliardaires yoo fi dégg tey ku mel ne El Hadj mën naa ci ku mel ne Jili Mbaye mën naa ci ku mel ne ak ñi mel ne Serigne Cheikh moo leen formé moo leen teg ci yoonu liggéey ba ñàkk fi ak ñeneen ñu bare bare bare ñoo xam mu ne su leen tudd boo demee ci wàllu politique Serigne Cheikh vision am gisee moom dafa sori woon ba nga xam ne bi Senghor ñëwee mu xam ne Senghor fi mu nar a ci kàmb la dafa jóg opposé ko def ca lu nekk waaw te noonu la ko defee ci domaine yëpp xëy na temps temps bi day xat mënu ma ko détaillé benn par benn waaye domaine yëpp da ko jar waaye wàllu xam-xam nag moom sëñ Cheikh dafa xam ne dara mënut a sotti te teguwul ci xam-xam moo bi mu ñëwee li ko jëkk yitteel mooy xam-xam yëpp nag xam-xamu diini moom la mooy laltaay li mooy lépp waaye sëñ Cheikh lépp la jàngalu ndax ñun bi nga xamante ne yàlla dogal na euh, mu man bi muy bi muy bi muy tabax école njaari bi ci sama kanam la ndax mën naa man mii gannaaw yàlla bu ma jàngee te yàlla ak sëriñ Cheikh la ndax bi ma jàngee alxuraan ba noppi sama baay dafa téye ne ma doo mën a jàngi xam bi ma fippoo ne ko ban damay dem jàng xam mënoon na jëm ci sëñ bi ñu demee ci sëñ Cheikh mu ne ko kii sëñ Modou Moustapha laa ko tuddee mooy sama taaw jàng naa ko alxuraan daa bëgg a jàng xam-xam te naa boo demee du du ma am ku ma yónni du ma am ku dara sëñ Cheikh ne ko ba ba mu fi nekkul noo ko gisul noo defoon mu ne ko damaa jàppoon ci yàlla mu ne ko bàyyi bu gars yi ko mu jàng te yàlla andi ko ci te sëñ Abdourahim dem mu jàngal ko maa ngi tabax fi ay jàngukaay bari ñu dugal ko ci sëñ Cheikh yëmalewul woon maanaam jàng jàngal nit ñi ci murit yi donc waaye ci ci Sénégal yi yëpp maanaam bu fekkente ne dem nga ci pays arabe boo dem sëñ Cheikh boo wàccee étudiants yëpp dañu xam tey am nañ am nañ am saada am nañ am nañ texe parce que xamu xamul murit bi ak ñëpp lay lay lay lay lay financé bu fa jógee lañ la mu leen jox mën na jaa dund parce que un an te du jeex waaye fii nag ci Touba ak Njaareem fi la tàmbalee ndax xam nga ne bi muy taba taba man tàmbali école bi ci tokkër bi jafe woon na lool ba tax moo tax comme tokkër bi moom titre foncier la mu mujj dugal tabax école bi ci biir tokkër bi nga xam tubaab yi kenn mënu koo xeex parce que foofu moo ko moom ci loolu la bëggoon a tabax euh, école bi nekk Njaaréem fii la ko yéene woon waaye bi ne baam tee jafe-jafe la ko yóbbu Njaaréem nga xam mooy kër sëñ sëñ Modou Moussa goo nga xam mooy xalif sëñ Modou Moussa def ko fa kon maanaam sëriñ Cheikh ci wàllu xam-xam lim ci def Moustapha Diop lim na ci lu bari waaye mënu koo jeexal domaine yëpp ci wàllu xam-xam sëñ liggéey na ci képp koo xam nun ñi bi nekkee njaareem di jàng euh, ci école bi mag ñi dañ na doon xeex ne yéen dëngu leen dem tool nangu leen def nangam nangam sëñ Cheikh dafa enregistré benn bande jox ko Moustapha Kayel ne ko boo demee teg ko ca daayira ba ne leen gone yi jàng buñ nangoo li ma leen def loo ñoo ma gën a ñee nekk ca àll ba di béy waaw bu leen kenn jàngaloote bu leen kenn liggéeyloote nañ leen bàyyi jàng jàng laa leen tan donc sëñ Cheikh jàng fi mu ko teg ak lim ci daj buñ ko wax fii ba suba du jeex bëgguma mun pël parce que xam naa li ma wax bari na léegi dënn ba mënumaa génnee lépp. Serigne Moustapha sëñ Cheikh taxawaay bi nga xam ne taxawaay noo ci xam-xam ban njëriñ ngeen ko gis ci jamono ji ñu toll nii. jërëjëf euh, sëñ bi maa lay sant bu baax question bi moom daanaka sëñ Moustapha répondre na lépp euh, ndax moom mooy suma kilifa moo ma jiitu ca daara ja te it wet yu bari moo ci tàggat mais damay wax rek ne xam nga àdduna ba mu ba léegi. Euh, li fi mas a am mooy société bu fi mas a ñëw day am benn benn benn benn idéologie bu fi taxaw war a màggat war a am ku ñëw ne ko loolu moo mas am ci temps avant yonent bi sallallahu alayhi wasallam xablal islam yonent bi ñëw teg benn révolution alors ba fi jógee ba ci jamonoy sëñ Touba li fi nekk ci diggante bi bari na ci ay problème sëñ Touba ñëw defaat jiit lool maanaam defaat beneen révolution révolution nag ñaari façon révolution moo am bu pacifique ah ak bu violence bi mu amee nag bi sëñ Cheikh bi sëñ ñëwee moom euh, ci gàttal dama koy tënk euh, suñu borom baaxee ko muy sët bi njëkk ci ci ci ci Serigne Touba bi jóge ci jàmbaar ju mag ja Cheikh Moustapha al mi nga xamante ne moo wutu woon borom Touba te jaayoon léppam yoon woowee mu yaroon Serigne Cheikh nag sëñ Cheikh soobu ca yoon woowa. kon lim ñëk tek moy mooy dan lan révolution ba tané révolution mu gis ñaari révolution amna moy révolution bi ma la wax légui pacifique ci jàmm euh, waye dafa am lu mu jar ak révolution bo xamanteni ni bis sinan lay doon wal kataayib manam armement lay doon Serigne Cheikh euh, révolution pacifique par moral et technique manam euh, bi mu ko tané bobu dama wax na fa am lu mu jar moy da ngay sanni sa bop sa bëgg-bëgg dootul taxaw da ngay doon ku gëstu am xam-xam da ngay xam itam njariñu doomu aadama yi fan la aw nga xam ko da nga xam luy lor doomu aadama yi da nga d'accord ñëpp di la bañ itam waaye nga dëgmal fi nga dëgmal rek dem da nga da nga da nga génn itam gëstu fu ne seen Cheikh jël boobu bi mu ko jëlee lim njëkk a tàmbali mooy ak itam fexe ba ñëpp jublu ko nag ci wàllu xalaat ak gis-gis du fexe rek bu politique de mais dafa woon ñëpp ne moo leen gën a rafet xalaat moo leen gën a rafet xam-xam moo leen gën a gis lii ñëw ëllëg itam ba pare itam moo leen ëpp fit obligatoirement société bi dañuy wëlbati ko topp ko biñ ko toppee nag ci la daal di sóobu nag xam ne yoon wi mën a jaarale tey jii ñi ñu àndoon ak moom ñu jàll ak ñi ñëw ëllëg mooy yoonu jàngal moo yoonu jàngal ndax doomu aadama bi moom tant que jàngut yombut mënta mucc ci nax tant que jàngut mënta tabaxub société te xam na ne société bi mu soxla ëllëg pour mu taxaw il faut mu jàng il faut mu am ñu jàng loolu tax na mu wëlbatiku soobu ci daal ci soob nit ñi itam bu doon sax dajee soobu nit ñi taxaw mais moo ci njëkk a soobu ay doomam wax naa la léegi na sëñ Moussa Mbacké notaire bi ma fi euh, représenté nga xam moo jiite association des anciens de l'institut islamique ci école boobu la génne ak ñeneen ak ñeneen alors ñooñu nag bi ñëwee itam mu mu daan ñu won na nag li li li lim gën a bëgg la jox kër ya këram ya gën a bëgg moom lay joxe euh, toolam ya gën a bëgg moom lay joxe bu tukkee bu ñëwee balaa dugg ci néegam ci ñun lay ñëw wane na ñoo ko gënal ba noppi nag won nit ñi ne leen man lii ma am ak li may li ma li may def lépp maa ngi ko jëme ci xam-xam parce que ci laa ko jële te itam won nit ñi ne leen ku bëgg a mel na man te Serigne Cheikh ñëpp a mel na moom ah ñëpp a bëggoon a mel ne moom ndax yar bi mu yoroon ndax am-am koom-koom nangoo liggéey gi civilisé gi ba nëgëni si kenn dabagu ko ci. ba nëgëni ku bëgg a tabax kër kër sëñ Cheikh ngay ku bëgg oto bu rafet oto sëñ Cheikh ngay ku bëgg col gu rafet sax oto sëñ waa kër sëñ Cheikh ngay ak sëñ Cheikh. mu ne nag loolu ku bëgg a mel ne ma da ngay jàng ci la dugal nit ñi nag ci jàng defit li jàng war maanaam du jàngal nit ki mu am xam-xam rek mu bàyyi mu jël nit ñu orienté maa ngi fàttaliku jamono gouvernement Sénégal di joxe ay bourse bourse yi mu doon joxe dañ cee bind pendant et après gouvernement Sénégal amul lu mu rest lu mu la lu mu la lu mu responsable ci sa jàng booy jàng responsable la boo pare itam parewul pour jox la dara biñ dikkee woon ko sëñ bi ne ko bourse bi liñ ci bind association euh, attestation bi buñ jàngee danañ am problème mu ne ndax ki leen ko jox daa xam ndax bu ngeen jàngee ba ñëw da ngeen ko fekk wala rek yéen kay dem leen jàngi rek bu masaan bi dikki bitim réew day woo étudiants yi laaj kenn ku nekk ban orientation nga nekk

dañ ko yóbboon mu bëgg a jàngi xam-xam ci bote côté orienté man mii biñ may indi mbiskit lañ ma boole ak sama ëmb pour ma dem Taïf Murituju ak bi ma jàng alxuraan ba bi ma ñëwee mu ne waloon Abdourahim dem dugal leen ko ci école bi parce que daa xamoon ni muy orienté ku ñëw war a jàng mu dugal la ci jàng ku war a dem ca daara ji mu yóbbu la ci daara ji noonu la meloon waaw jërëjëf Serigne Moustapha ñoo ngi lay sant baax kon xam naa dañuy wëlbatiwaat ci Serigne Moustapha daanaan dégg ci mag ñi ñu daan wax daana wax naan xam-xam xaw ma bokkati mu mel ne kon bi muy door a ñëw Touba di installé école française ñu comprendre woon li mu bëgg a def xaj na ñu ko xam bariwul ba tax na xawoon na ci am ay jafe mais jafe-jafe yooyu yan yan stratégie wala yan yoon la jaar ba jéggi stratégie ba jéggi jafe-jafe yooyu ba mën a taxal eh, ay école française tey ba nit ñi di ci génne dem feneen. fonkum fonk xam-xam yëpp nag donte leen nag xam-xamu diine la jiital ci lépp ndax yàlla naa lee Sëñ Tuubaa إلا إلا الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولا أفنى الفنون كل يقول يلا خم خم من أم خم خم سرين شيخ دقنا شيء ما جيني نه آه، بفي ويجرون بتر دوانك سرين محمد المصطفى رضي الله عنه تسين شيخ دي جانغ فرنسي غودي أم فمي جانغ فرنسي نيدم بخصوص سرين مدرسة تشتين دوري لو تسمع نيلا كو دقي سرين مدرسة وق نكو يودل ما دقنا دقي جانغ نصران تخم عن سمام دقي ñoom la moom ñoom nasaraan la gënoon la bañ te dégg naa ne yaa ko jàng sëñ Cheikh daf ko ne man de damaa jàpp ne xam-xam xawma bokk ci comme li nga wax nii loolu wax sëñ Modou Moussa euh, kon euh, Serigne Cheikh vision dafa dafa régi man kay malheur bi ñu am mooy Sénégal comprendre nu kañ mooy Serigne Cheikh waaye bu ñu ko bu ñu ko teeloon comprendre maanaam kon Sénégal fii Corée àgg ndax Sénégal ak Corée ci jamono yooyu ñoo tolloo woon ci euh, ci développement mais kon fii Corée àgg noo ko fa Euh, Serigne Cheikh euh, ci wàllu xam-xam euh, bañ na ko ba maa ngi fàttaliku ñun biñ nekkee Jurbel ñu sëñ sëñ Abdourahim de bi indi fa benn benn làkkat bu koo wa waa waa waa waa waa waa Casamance la ku dëgg arab mu di ñu jàngal am ci murid ji français kaas comme sëñ sëñ Abdou nag naan ne sëñ Abdou kii fa indi du murid ndax xamuñu lii nangam nangam sëñ Cheikh ne li ñu soxla ku ko mën di ban ak fu mën a joge ak nu mën a mel liñ soxla rek lañ soxla seetuñ ci murit seet mu nekk nekk murit nga xam ne moom xam-xam la la joxoon la joxoon euh, gëdd waaye seetul ne kii fii la bokk wala kii fii la bok euh, bañ na ko mais maa ngi ko bi mu jógee Maroc di def def programme bi ci li ma dégg bi ñu defee programme bi sëñ sëñ Saliou ambassadeur yàlla na ko yàlla yërëm dafa dafa bëggoon ñu jugu dugal xasaay di ci li ñuy wax maanaam champs yi daal ñu dugal ay mawaahibul xudus yi demee noonu bi ñu programme di nga bayit ko mu ngi ci xasaayid bi te koo baari moom sëñ Cheikh ne ne daa école bi jullit yëpp ko bokk xasaayid yi murid yee ko moom nañ bàyyi gone ñu jàng diine bu ñu xam bu xamante ne diine fu ñu jëm baax na xam nga kooku fu xam-xam la yëkkati mais yëkkatiwul donc bañ na ko man sëñ Cheikh boo ko seetee euh, xaritam yi ci ëpp yëpp dañu woon ay murid moom moo de ko wax dafa ubbeeku nga xam bo ñi xaritoon ñi boko sété seetee yaakaar nit ñaar wala ñett mën moo am kon señ tax ci boppam xam-xam ci boppam la xam manam gëddam mu jox ko ko te sétu seetu ci maanaam kii murit wala kii tijaan wala ki la ki len la ngir man comme ni ma ci njaal bi wax di neena la fu ma sa fekk ko jang way laa ko bëgg bu jang ba problème bo ñe bo bu sa bay bo ànd sa bàyyi ñëw ci seex mu ne ko bàyyi ko ba sëñ mu ne ko bàyyi ko mu kon vraiment señ tax dal ñu joxante xam-xam ken mu ci wax bam jeex waaw jërëjëf sëñ kon ñoo ngi lay santaat bu baax di la gërëm xanaa dañu doon laaj sëñ Moustapha Diagne bu mujj rek maanaam ñi nga xam si ne nii Serigne Cheikh nga xam ne orienté na leen ñu nekkoon ci beneen beneen beneen matière mu jëleen fa yóbbu leen feneen est-ce que mën nañu ci ay nit ñoo xam ne ñu remarque ba lool ci ci ci Sénégal ñoo xam ne ba léegi ni ña ña ngay satisfaire lool ci ci leen nekk. li nga wax noonu damaa dund ak ñooñu parce que samay promotionnaire la ñu euh, dama lay wax ne la. su ñu commencé pour premier faw ji bi nga xamante moo gënoon 68 am na ci rahmatullahi alayhi kuñ daan wax Moussa Niang ingénieur en agronome la woon sëñ euh, Ibrahima Fall ma nga njaareem actuellement ingénieur en agronome en retraite ah amoon na jamono yooyu euh, ci ci ci promotion boobu am na ci ñoo xamante ne nii ay fonctionnaire international la ñu ku mel ne Moustapha Dieng ma actuellement Strasbourg am na ku ñuy wax Moustapha Ndiaye mi ngi woon euh, Venezuela xaw ma ñibbisi na léegi alors am na Imam mbay Niang bi ngay dégg ñu naan ministre la woon wala député la woon chef de parti la te nekkoon aéroport ASECNA ci ñoo bokkoon benn classe sëñ Cheikh ko jàngal moo ko yóbbu Maroc boo seetee professeur Salou Salam mi ngi fii diplomate la daa def diplomatie ba mu jeex mu ñëw di jàngalewaat fii ci école bi Abdourahmane Diop Abdou ambassadeur la woon moo nekkoon ambassadeur u Sénégal bi nekk te avant loolu c'était un moo nekkoon traducteur premier traducteur bu Irtadan bi mu fi jógee mu ñu jëlaat ko yóbbu ko OCI e mu nekk OCI e ba retraité président de la république Abdoulaye Wade soxla ko yóbbu ko nommé ko ambassadeur mu nekk fi ba tey jii euh, con euh, ubbi na benn cabinet il est sollicité dans dans tout le monde amul fenn benn benn semaine bu muy def Sénégal bon euh, boo boo seetee am na yeneen Ibrahima Thiam. professeur à l'université la Serigne Thiam professeur Jimi la mi actuellement à l'université mais je dis mën naa toog di la limal sëñ Moustapha Lo mii mboolem luy daara ci ci Sénégal moo leen jiite ci xam-xamam ci maandoom ak cam ci ay techniques yu muy yu mën a maître Mbaké, bi ma lay wax nii du doomu sëñ sëñ Cheikh Mbacke monsieur maître Moussa Mbaké. notaire là, mooy président notaire yi nekk Sénégal mi ngi Dakar Cheikh Cheikh Mbacke Dieng inspecteur de l'enseignement de l'enseignement la Serigne Amar Diop inspecteur de l'enseignement la maanaam bu ma toogee di la limal du jeex damaa wax ne sans compter nag sama classe gi nga xamante ne ay professeur rek ay classe sëñ Cheikh Kawe gii sëñ Cheikh Dio Abdou Diouf ñooñu ñëpp ay enseignants lañ ay professeurs lañ c'est des fonctionnaires te itam reconnu au niveau de l'État ba pare fi ñu nekk liggéey itam ñu fay feeñal lu mag ba ma wax la ne la rek euh, loolu laa wax léegi ne suñ seetee sëñ Cheikh intérêt bi mu doonoon nit ñi nga xam ne orienté na ku pour mu réussir en vrai dire tey école am yii Don naa modèle parce que bu doon kenn ku nekk génn nga ci école boobu delloo nga njukkal Serigne Cheikh bu doon asak ak yi ngay am par at sax mais je dis def ko ci école bi je dis que école bi dana nekk modèle te nag suñu ngor suñu suñu suñu suñu ndam mooy defaraat école bii ñu Serigne Cheikh defare woon bañ defaru ñu delloo ko ci njukkal bi école bi defaru ba wat ñeneen ñu ñew lolu moy ndamu kep ku jang ci école Serigne Moussa Mbacké nak ñu ci wo ñep ci association pour ñu fekk ci ko ci and liggéey ci lu mel jërëjëf mbokk yi kon lolu moy jotaay bi nga xam mom moom lañ àndoon doon waxtaane Serigne Cheikh ak taxawaay ci xam-xam ñu àndoon ci ak Serigne Moustapha Lo ak Serigne Moustapha jeng kon ñoo ngi leen di sant bu baax ci yaatal googu yalla sun borom may ak deg ak topp alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sigil te weytoo madru yi tuub ci yow bu wer te bul faale ka wuy see ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ña daawoote ña daawaate Moustapha